voilà jërëjëf euh, mbokki internet yi tey jii dellu siwaat nañu seen beneen jotaay ci xibaar 24 point com dina jotaay bu nu seq ak euh, Alla Sylla di responsable politique ci parti bi di APR ci Touba waxtaan bi ñu amalee ko ci ndaje yi nga xamante ni ñu ngi ko koy faral di tudde bii nag doonoon benn cant bu amoon ci Touba Daaru Minam naka bi mu génnee rek ñu seq ak moom waxtaan bu yaatu voilà sëñ Alla Sylla laaj bi mooy euh, xeetu cérémonie yi li nga fiy teew dafa bari loolu ah, mel na ni chaque semaine ñu parrainé la euh, benn xew-xewu diine xanaa kon ndaje yu mel ni occasion la ngir nga mën a dérouler euh, say activité sociale waaw maa ngi nuyu Babacar ñëpp sant ñëpp di gërëm man li ma bëgg a def rek mooy bàyyi ñuy wax ñuy wax man may liggéey ak li ma am may jëf ci nit ñi di leen dimbali sama kem kattan ngeen koy teewe ñëpp di ko teewe ba ci koor gi def nañ ko xëy na ñu ngi wax sax ni dëkk bi kenn joxewu fi dara ci koor gi kenn joxewu fi dara ci koor gi am na ñu ma dégg ju di ko wax waaye ñun du ñun ñun daal li ñu wax la ñuy def bu nit ñi dee wër di wax ak galgal aka tappale ñun ñu ngi taxaw ci dem ci nit ñi di dimbali néew ji doole yi yaakaar naa président nag bu fekkee am na ñu koy jéem a nax te gis ni ñun ñu ngi liggéey mu nangu ñooña di ko nax ñun ñu ngi koy déglu rek ba xam. ah suñu sukkandikoo kon si ni ngay doxee mel na ni dàqloo benn ndaje. fun la woo rek nga ni ay ca. waaw mooy li ma la wax rek. ñun duñ duñ ci boolee wax nit ñi daal la ñuy wut dinañ fexe ba wut nit ñi ba am leen ndax nit ñi moom li leen di am mooy dox ci yar ak teggin euh, duñu ñu jéem a dox di santas kenn itam waaye nag bu liggéey jotee ñu ngi liggéey ci biir askan wi lu ñu am dinañ fexe ba jox ko askan wi ñi comme niñ ko waxee rek ñiy wër di wax moom nañu wër di wax ñun ñuy wër di liggéey ci askan wi yaakaar naa nag euh, président tamit du bàyyi ki nga xam ne mi ngi tappale fekk kiy liggéey mu mu mu koy bàyyi. waaw moo fi dajale nit ñi cant yi ak mbootaay yi ak yar ak teggin rek soo dëkkee ci di dem ci cant yi ko amul cantam nga def ci la nga ca war a def nit ko am mbootaayam nga dem def ca la nga ca war a def yaakaar naa su wate jotee rek danañ defal li nga bëgg ñun nag ci loolu lañu sax li dëkk bi laaj rek yar teggin ko am cant ñu dem ca ku am mbootaay te nga xam ni cant nga cay def ñu dem ca rek yaakaar naa ku ci sax bu wate jotee di nga am li nga bëgg. Sëñ si la waaye mel na ni yile xeetu ndaje kenn du fi ñëw ak loxo ñëw tooguñu di xaar moyen parce que li may wax rek toujours gone yi moom laa leen di wax liggéey kese euh, politique kese du métier ñun dañ koo boo rek suñu liggéey dañuy liggéey ba tëdd buñ liggéeyee ba noppi nag déema dugg ci askan wi nag defanteeg ñoom moyen comme li may wax rek ci Touba ku toog di xaar moyen rek doo liggéey ñun dañoo bëgg liggéey rek ba ba moyen di ñëw fekk jekk nañ waaye buñ toogee di xaar moyen ah yaakaar naa liggéey du am bokkuñu daal ñiy wër di wëndeelu di dem ci bureau yi di comaaytu te ñu président ñun daal li ñuy defal paysan mu ngi nii guddi gu mel ni tey ci la ñuy dox ak leneen lu mën a doon fuñ nu woo daal ci askan wi dinañ fexe dem wujji leen wanne leen ñun ci lii lañ nekk fexe ba askan wi kontaan ci ñun. voilà euh, nee nga kon yow terrain bi. yaa ngi ciy liggéey di si profito di jàppale président Macky Sall ci xeetu ndaje yu mel ni est-ce que ña ngi liggéeyal xam nu sa taxawaay waaw xam nga li may liggéey yaakaar naa bis na ñëw rek président dana ko xam yaakaar naa yi tamit xam na ko yaakaar naa xam na ko ndax président ci boppam moo jàpp sama loxo ni ma man yow Aliou soxla naa la soxla soos nag man xaw ma tey lay doon xaw ma suba lay doon man maa ngi toog di ko xaar rek maa ngi koy liggéeyal daal te xaaruma ci dara yaakaar naa ku ñaqit di nga jariñu am naa yaakaar ci loonu comme li Moustapha Cissé loo wax rek coow li dafa bari ñuy wax Moustapha Moustapha Moustapha gis nga lim wax nee na ma gone yaa ngoog àndal ñoo àndal ak ñoom te liggéey kon yaakaar naa lu waay liggéey rek du réer nekkuma ci dëkk bi waaye fas yéene la toog nga ànd a añ jamono ji APR si Touba rëb na loolu ndaxte tontonte yi ak xuloo yi bare na loolu sa gis-gis si wàllu woowu waaw xam nga sëkk jëf dana ci am am na ñooñ xëy na wax rek mooy seen métier mooy comme li ma la wax rek ñun duñu wax doonuñu kuy wax di tontonte soxlawuñu fee tontu kenn lu ñuy def lépp lu mu doon lu ne ci yar ak teggin rek lañ ko bëgg a dax ak dox ci askan wi rek bañ xam ne ñun ñii kat yaru nañ te fas nañ yéene luñ leen woor rek dañuy jëw yi ci loolu rek lañ bëgg a jéem a sakk ñuy def nag yaay sonn. bu dee si wàllu politique waa kër Alla Sylla maanaam ñi nga àndal mu doon ndaw yeeg ñeneen ñi danoo seetlu ni seen teg tekkaaral dafa bari te nag politique moo laaj yëngu. matukaay toujours mooy yar ak teggin rek ndax dëkk bi loolu la laaj parce que bëggu ñoo liggéey ba yàgg ñu xëy xëy nu ñu bàyyi leen li ngeen def loolu dañ ko ciy bàyyiwaale xel lu ñu def daal yar ak teggin lañ ci jiitu mooy suñu matukaay bu def jotee li ñu war a def rek danañ ko def mooy ànd ak président parce que yéen premier tour moom kenn du ko fi raw ñu yàqkat yi bari na waaye nag ñun faale wuñu leen ñu ngi ci li ñu war a nekk daal defuñu politique nag métier waaye fas nañ yéene liñ ci soxla buñ rek danañ ko def ba mat sëkk voilà bu si actualité jamono ji euh, nemmeeku nanu ni am na responsable politique bu ñëw si APR dina nag kilifa si maire bu Touba di Birane Gueye conseil municipal la jël na décision ni mën na pare parrainer moom rek président nag Sall si diwaan bi te fekk na yow suñu fàttalikoo si ginnaaw waxoon nga ni parrainage bi yow rek mën nga ko jël en charge est-ce que nekkul ni jamono ji àll sil am na wujj si terrain bi Birane Gueye xam nga man wax dëgg kilifa la mag la duma ko tontu waaye yaakaar naa euh, xamee nañ xam nga nit moom ki ko xamul waaye ñun xamante nañ ñun ci suñu biir xam na ma bu xam na bu baax kon lu amuñu daal luñ fa war a prouvé yaakaar naa kuy wut nit daal du ñu la jàngal Touba président duñ ko wax dara am na lu day sëkk ci renseignement xam na li xew Touba suñu liggéeyaloo daal ñu liggéeyal ko am na loolu nag moom moo ko mënal boppam xam ne am na luñ man mu def loo ñu ko. ba tey si wàllu politique jamono ji si Touba APR wala sax ma ni benn bokk yaakaar wax tuumuraan ki njiit est-ce mën ngeen demee noonu fii ba élection wala soxla ngeen njiit. Touba spécial la dëkk bu nga xam ne dafa spécial la spécial rek lañ koy doxalee il faut que mu jël nit amu fit liggéeyloo ko te muy ku jub ku nit ñi bëgg rek. sànq yaa ngi koy wax sa benn wax bëgg noonu nga dellu si si àll si la social bi ak politique bi ngay boole. man du ma bàyyi dara dama laa wax ne la man dama ma bàyyi gars yi ñuy wax may liggéey gars yi ñu ngi wax mais man maa ngi liggéey bu dee Adi Sodo li ma ci def ñoo àndoon doon ko wër lu mu doon lu ne kenn du ma ca man bu dee Adi Sodo bu dee jàkka bu dee laneen bu dee koor gi kenn ñëwul damaa ñëw. bu gàtt gàtt def naa 16 tonnes une tonne suukar man tooguma rek di xaar dara dama toog di liggéey mais dama toog lu askan wi soxla rek ma fas ci yéene ànd. beneen fànn nga ni am solo loolu muy wàllu prescription bi lan moo ci sa taxawaay. dama defar këyitu juddu yooyu ba tey sax mënut a jeex yaakaar naa li ma bindu li ma bindu ci Madiyaan ak Saam suñu wote woon xajul sax ci élection président nag li ñu koy wax mooy li Touba am bu mu ko sàggane parce que mën na koo fal premier tour. ba tey ñi ngi dégg ay financement si wàllu ndaw yi ak jigéen ñi nan la si àll si la taxawee. man sonn naa ci nag dossier yi waaye sonnuma ci noonu ndax dañ cee jaar ba tey mu mujj neel man bëggumay dem ci ni ma leen di wax man gëmuma ko man dama bëgg wax rek mu leer def financement rapide ñu nekk fi ay responsable dañoo ñëw war a ñëw ci ñun laaj nu ñan lañ war a financer ñu xool ñi nga xam ne bëgg nañ président te bëgg koo liggéeyal ak ñi nga xam si wóor nañu suñuy am di jaam la buñ leen ñoo de ñu liggéeyal président ñu wax nanu ñu ñu ñu defaral leen kayit yu légal ñu financer leen waaye bu ñu bindee waa Touba gépp te financement yi dañuy bugguma mu nekk naxee baay moo tax man yàkkamtiwuma ci bind trop ci financement rapide yi kon daal mën nañu jàpp ni politique bi ngay def euh, social moo ko lal. waaw man li may def rek yaakaar naa mooy politique su tabaski ñëwee nga jiyam fexe ba am xar kor ñëw nga fexe ba am suukóor ak ceeb man yaakaar naa loolu mooy politique te maa ngi ci te duma ci a la ci yaa ngi ñëw jàpp nga ci def naa fi loolu kenn defu ko daal ci koor gi te loolu nag ci laa fas yéene continuer liggéey lu ñëw lu ne danaa fas yéene kenn du ca man yàgg ngeen di sàkku si njiitu réew mi mu dalal leen audience boobu li ngeen jàpp ni noonu la ko war a déroulé. audience bi moom ñu bëgg nañ ko mais bëgguñu audience bu nga xam ne pëcc xoola parce que tamit audience bu nga xëy dañ fay dem di fa xuloo wala ñu fay soow itam gënanu ko président am na responsable yooyu faaw mu tànn leen woo leen wax ak ñoom parce que am na lool ñoo ko xam toujours may dégg nag am ñu ñu wax ni ña nga leen di recevoir ñun nag duñ ci boole wax ñoo ngi toog rek di ko déglu parce que politique yi tamit daanaka métti na métti waay bopp jërul xëccu ci nit ñi tey tey tey nga recevoir ma xam sa daal bu ñu recevoir dinañ ko leeral ci li xew ci dëkk bi danañ ko liggéeyal ci dëkk bi lool kenn mosu ko ko cee liggéeyal. Moustapha Cissé Lo doon na kenn ci yow ci ngeen di ànd ban a wax moom dara lu dul daal ñun la koy def bu dee APR Moustapha Sylla moo ma ci njëkk a may béyee kon man duma ko mën a xaj kii xarab ci dara may na ma béyee en tout ngi may dimbali daal ci lépp lu nga xam ni politique moo ko tax a jóg en tout cas it man danaa fas yéene bu taxawee jàppale président ñu ànd ak moom jàppale président ba premier tour dana ko am. Touba na ay responsable ku nekk jël sa yooni bopp tey jii ban message ngay jàllale si responsable yooyu. man li ma leen digal mooy ñu ku ne xam nga ki la man képp ku nga xam ne bu ñu jot ci ñu jox la ko nga seere ko fexe ba ñi ko moom ñëpp jot ci ñu liggéeyal paysan mu am li mu bëgg. ku ne politique ni ndaw ndaw yi nag. seen yi mooy ñu ñu nag fexe am fulla am fayda def ni yeneen seen moroomi seen yi nga xay dañoo bëgg di politique am fulla liñ bëgg nag nañ taxaw wan ko wax ko di ko def mais sën la maay sënu APR te bu ñu dara disul élection du ñu gis ay sën ñun loolu tamit gënaluñu dañoo bëgg ku bëgg yëf yi nga ñëw ñu ànd liggéeyal lum nu jaral lum nu jaral ñun ñi nga xay dangaa bëgg a ñëw ànd ak ñun nga nekk sën ñun danañ taxaw taxawaay bu nga xam ni danañ xam ni taxawu nañ la. mu nekkoon waxtaan bu ñu seqoon ak Alla la responsable politique Madiyana président zone 4 opérateur économique si Touba. voilà comme ni ngeen ko déggee ñëw na lu yaatu si taxawaayam si parti bi di APR si ndimbal yi mu jël di koy jagleel population bi ëllëgub APR ak relation am ak ñi fi responsable ak yenn message yu mu jàllale di kon jox leen ndaje incha allah ba beneen yoon si beneen jotaay ni muy faral di amee rek mbokk yi si médias sociaux yi site bii di xibaar 24 point com chaîne YouTube xibaar 24 TV groupe WhatsApp yi nga xamante ne ñooy suñu ay partenaires suñu page bi nekk Facebook di xibaar 24 ay Twitter ak yeneen xeetu médias sociaux yi